não, não. ba tey ci seen scandale du jour de ce 16 juillet 2024 euh, vidéo bi aussi dama bëgg ñu seetaani ko mu nekk loo xamante ne euh, euh, démb kii di Thierno Bocoum ginnaaw bi président waxee moom it yëkkati na ay kaddu daal di wax ci li nga xamante ne moom mooy discours président ñu déglu ci Thierno Bocoum ñëwaat. xam nga dama dégg président de la république. damay jaaxle sax parce que ñu dañuy woo fi débat d'idée mais gisaguñu ay idée ban idée ngeen mën ngeen gis ba ñu toogee ba léegi defuñu DPG defuñu plan d'action gouvernemental président su toogee loo ko wax day survolé soo ko ne emploi mu ne woy agriculture bi ak renforcer le secteur privé point far ngay jaar waxul te ñu ñu woo ci débat d'idées ñu yàkkamti nañ débat d'idée bi de mais gisaguñu fi ay idée guñu fi benn idée au contraire dañuy mer rek xamu lu xew gagné ba paré di mer on a on comprend même pas ñu ngi leen di xaar pour ñu wax ñu lan lañu bëgg domaine bu né lan lañ si namm ñu débattre ci lolu mais ñun suñu leen di tontu ci ay idée lañ leen di tontu depuis le début nuñ doon opposé wo ñom ñun duñ ko opposé wo c'est pas parce que bëgguñu ko mais xamuñu ko donc lu mu bëgg wax ci lolu mooy manque de transparence boo xamante ne bu doy waar ak populisme yow soo waxee engrais wàññi naa ko la moo la teree wax nit ñi ne leen engrais daa wàññeeku fële à l'international fëgg sa dënn def say kii bind say kii fu dee wut say nit ñu koy jàllale waaw engrais bi daf ko kii nii la jaroon lan moo la teree wax yow fi ngay jëndee daa wàññeeku waxoo ko

débat di mënu fi am ñi xamuñu débat d'idée dem ma nga dugg ci benn taxi di déglu benn radio xaw kuñ fa invité won waji né quand tu appelles à ces pastifiennes ci xasté ci saga ci dagga santé ci wax ju ñaaw ci gasta gasta ils sont prêts man dañuy pare yebbi la ba nga set futti la ba nga set yek la mën nañ ko waaye boo leen waxee débat di de ci lu ñuy wax il se basait sur un projet que Ousmane Sonko avait bien clôturé dugal ko ci coffre-fort coffre-fort ba seey na galaas menteng boo leen woowee ci débat di de li ñuy wax ci li ñuy wax au contraire bi ñu ñëwee seen ministre lu ñu def jël tracteurs yi seen ministre d'agriculture jël tracteurs yi naan ñoom ñoo ko ci wàccee te Macky demoon ba it ba wu fa mu nekk ay kàcc ki ne woon berte bi ak kii berte bi amu fi benn njëriñ daa dem di di sant ak a gërëm berte bi seen ministre yi xanaa loolu de mën nañ koo débat di ci lan la ñuy débat ñii ci lan la ñuy débat di wàññi nañ dund gi ci lan ban de kenn boo ko ñii mënagoo ñii ñii ñii mënaguñoo ànd ak yéen ci débat di de dafa fi luy liy tax ñii inauguré wuñu ñi indiwuñ fi xaalis boo xamante ne jaare lañ ko sénégalais xam ni leb bi kat jaar na yoon te faguñ ko ñii <laughs> ay waay yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla suturaal Thierno Bocoum ñii mënuñu leen woo ci débat di dee amuñu ñii xasta lañ mën yaa fi waxoon lii yaa fi defoon lii quand j'entends ces gens dire pourtant Macky Sall defoon na yéen da ngeen ne woon Macky dafa bon kon lépp lu bonoon ci mag yéen waroo leen cee jaar mais yéen da jël loolu daganal ko ci seen bopp mu nekk ay mbirum fekk de menteurs ay fenkat bari ci réew mi daganal fen araamal sàcc ñu gis ko ci réew mi waaye noonu la axiru zaman yàlla baax na